salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi jéglu ci yéex a jég euh, door gi ñu fas yéene door li la di xibaar yi lépp ci wàllu xarala yi la. ñu daal di ñëw yéen ci li ci lara gënal. Birama Ndiaye. bokk na ci tukki njiitu réew mi foofee ca Ndioum daal di na xam itam yóbbu na fa lu toll ci benn milliard ak juróom-ñeenti téeméeri million ngir rek dàpp euh, jàppale ndaw ya nga xamante ne daal di wuñ fa am xëy loolee nag daal di na ci andi na nga xamante ne noonu la ko fas yéene euh, daal di andi séddale ci fànn boobu boobule rafetlu itam ànd gi nga xamante ne ña fay yëngu ci wàllu politique daal nañ ko def loolee dinañ ci ñëw. ci yaatalu xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw li ñu koy toppal di Yves Tendeng élection gox goxaat rawatina ci lu jëm ci fànn boobule tax na itam euh, foofee ca boro mouvement taxaw tem nekk ca département bu Tivaouane jàpp ne nag. àdduna ci mbir moomee ginnaaw bi nga xamante ne nag moo ngi doon am ak nemeeku euh, ci biir réew mi rawatina ci diwaan boobule coowalu suufu ndangalar pënd ba wuréegul fi mu ne nii nag euh, baykat ya fay daal di yeewoo fi mu ne nii lu sàkku ñu daal di leen euh, yoon àddu ci seen mbir te fi mu ne nii itam ñoo ngi daal di métti lu pat pataral gi nga xamante ne yenn kilifa yi daal nañ ko def ngir rek bëgg jàppal tànk kile di Babacar Ngom niki tey ji lañ ko daal di xam ne jàpp ne nag faw ñu daal di leen létt wala boog ci li nga xamante ne moo jëm ci Joal su soosee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaare ginnaaw taw yu fi daal di am po bu wala dex bi nga xamante ne lu toll ci fukki dëkk dëkkaan ak juróom-benn ñoom ñoo nekk foofee ca commune bu Ndiaffate dem baag dëkk ba pont ba dafa daal di màbb ba tax rek daal dina fa ànd ak jafe-jafe askan wa yeewoo daal di yëkk ay kàddu nit yi tey jii dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li nu mel ñu ci boole yeneen xeetoo xibaar jeexale ko ci lu gënoon a fës ci ay xibaar ay bés bi ñu génn ñu ànd ceeg Josette Kali moom moo nar a buural xibaar yi. ñu daal di ñaanalante Alassane Wade moo féete ci xarala. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5. ak mboolem suñu bànkaas ñu lëkkaloo ni leen ko waxee ci ndorteelu xibaar yi njiitu réew mi moo ngi tukki nemmeeku foofee ca bët euh, Saalum bët gànnaaru réew mi xam ñoon ñu dem ba foofee rek fekk fa suñu ndaw asalaamaaleykum Yves. Ah, euh, maaleykum salaam maaleykum salaam. Yves euh, njiitu réew mi daal dina yëkk ay kàddu sànq foofe ca njum lañ lañ ca mën a jàpp. waaw Birima li ci mën a jàpp moo rek euh, njiitu réew mi yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci askan yu nekk fii nga xam te moom mooy euh, diwaanu euh, Podor rawatina commune bu Ndioum moom moom la di njiitu réew mi di Macky Sall daal di rek xam na ni ci wàllum programme bi ñuy duppee xëyu ndaw yi dina daal di rek dugal lu toll ci benn milliard ak lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri million ci lu soxal wàllum financement. ngir rek euh, jébbal ko ñi nga xam te ne ñoom ñooy jigéen ñi ak itam euh, ñii di euh, ndaw diwaan gi moom mi lay ba tey ci njiitu réew mi ci boobule ndaje bi nga xam te ko doon amal fii nii ci njuum xam ne na ne dina daal di rek créer lu toll ci junni xëy ak teg ci juróom fukk jëmale ko nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi rax ci dool yi ñi nga xam te ñoom ñooy yëngu ci wàllu ñaw bi mooy tailleur yi moom xam ne na ne dina leen jox Euh, rawatina ci li nga xam te moo soxal wàllum tenue scolaire yi ngir ñu euh, daal di rek ñëw lu toll ci euh, ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay tenues Euh, loolee nag euh, daanaka boo xoolee ci million maanaam ñe trois cent lu toll ci trois cent millions. ko euh, millions. Mhm. bu ñu ko ñi nga xam te ne ñoom ñooy tailleur yi bu ko defee rek ñu ñëw lii di yi muy ay dogal yi nga xam te ne jël na ko tey jii rawatina wàllum mbéy mi nee na en tout cas dina fexe ba ñu aménager toll ci dix mille hectares jagle ko ñi nga xam ñoom ñooy yëngu ci mbay mi fii ci diwaan gi moom nag mu yëkkati yooyee kaddu ginnaaw bi nga xam inauguré euh, wala sax lancé travaux li nga xam te moo jëm ci wàllum euh, maanaam euh, dorsale électrique bi nar a jógee fii ci njum jëm ba fii diwaanu Linguère mu toll ci téeméeri kilomètre ak juróom ñaari fukk kilomètre loolee nag daanaka jamono ji nga xam ne mu ngi amal a tukki nemeeku rawatina tournée économique bi nga xam te ne mu ngi koy amal ci douane gi moom ñu lee di njiitu réew mi démb mu nekkoon fële tey ji nag uh, fii ci Ndioum mu am nag ay infrastructure yu bëri yi nga xamante ne daanaka lancé na uh, seen i uh, travaux ci ko lu mel ni tali bi nga xamante ne moo nar a jógee demet jëm ba Kaskas ak it yeneen tali yi nga xamante ne daanaka bokk na ci luy mën a fexe ba désenclaver zone bi nga xamante ne moom mooy Ila Moussa bi nga xamante ne ay jamono moom xam le ne ne jafe-jafe yu tara tar la askan bi doon jànkoorteel ngir dem ak dikk jamono ji nag loolee tax na ba ñu mën a connecté waat yooyee diwaan ak it yeneen diwaan yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi yooyee mooy en tout cas euh, mesures yi nga xam te ne jël nañ ko fii waaye ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Oumar Anne bi euh, maire gox bi moom daanaka bu mu jëlee kaddu daal di rafetlu réalisation yi nga xam ne njiitu réew mi amal na ko ci diwaan gi te muy ne sax moom njiitu réew mi tax na ba diwaan gi lay di Ndioum mu nekk te ji maire ville ci boo xoolee ci tali yi nga xam ne am na ko waaye itam moom te ji askan diwaan gi li ñu bëgg moo rek Ndioum doon capitalu euh, maanaam région bu euh, Podor euh, bu fekkente ne daañu ko sànc mu doon région loolu la ñu mën a jàpp ne daal en tout cas ci kaddu yu ruusee tey ji nag ci ndaje bi amoon tey ji ci ñaareelu fanu tukkib koom bi nga xamante ne njiitu réew mi mu ngi koy amal fii ci bët gànnaar Yves doon jokkoo ak yéen biir Sud FM Yves allo waaw aha dafa mel ni dafa mel ni làkk na leen ci seen wàllu pulaar ne leen nag lëkkaloo gi am diggante Amadou Hott ak Abdoulaye Daouda Diallo ak Cheikh Oumar Anne daal na ko rafetlu ci mbirum politique. waaw moom voilà moom nee na rafetlu loolu boo xoolee sa depuis démb la daal di rek lancé euh, benn euh, kàddu jëmale ci ñoom ñi leen parce que fële ci Podor mu ngi doon wax ne euh, moom gis na ne am na daal en tout cas compétition ci ñi nga xam te ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum politique di rawatina kii di Racine ak kii di maître waaye moom xam na ne leen ñoom ñëpp benn bokk yaakaar bi li ñu bokk ba tax na daal. jongante waru mun a am seen diggante li mu bëgg rek moo ñu booloo euh, booloo googule sax la ki nga xam te mooy Cheikh Omar Anne daa di rek euh, xamal ko ne tey fi euh, nga xam te mooy mooy diwaan gi daanaka booloo am na te ci booloo lañ ko daal rek dalal loolu waral nag mobilisation bu takko takku bi nga xam te ne amal nañ ko tey jii ci ngoon foofule fii ni ci Ndioum ci wàllu li nga xam te moom mooy tukkib ne tukkib koom bi nga xam te mu ngi amal ci diwaan gi moom mii di njiit réew mi ëllëg dina xuus Euh, jëm ba euh, diwaan yi fi nga xam te ne euh, moom mooy jëm ba Pété bu ko defee rek mu daal di rek continuer jëm ba fi nga xam te ne moom mooy région bu Matam Birima jërëjëf général ñeme ko Yves Tendeng ñu daal di ko jaajëfal addu ci mbirum politique rawatina ci li nga xamante ne moo jëm ci ngir ñu daal di fexe randal lépp lu jëm ci wàllu mille élection 2024 yi ñu gën ko taxaw teel loole tax na rek mouvement taxaw tem moom itam nekk ci tournée ci biir réew mi ci axe mexe nag la daal di xamle loole daal di ci addu ci fànn boobule xool itam ananees la ñu def ba daal di fexe loole war a mën a am Babacar Sow Babacar. élection bi ñuy tànn njiit réew ci 2024 xalaat bu jógee ci mouvement taxaw tem doon def tukki nemmeeku ci axe centre bu ngaay mexee ci diwaanu kajoor ndaje weccantey xalaat yu ñuy amal ak askan wi di ndaje yoo xam ne yi ñu ngi yàbbi ci wàllum démocratie démb ak tey ji di xay xayma nataal yoo xam ne yi coordonnateur national bi bu mouvement taxaw temm professeur Babacar Diop ñu gën ko xamee ci turu Bouba Diop doon ci yee yàbbi. vous savez qu'on est en train de proposer qu'il y ait des élections anticipées. di dellu soit gis-gisu taxaw temb ci li jëm ci wàllum démocratie ak doxalinu réew yaakaar bi ñu ci am. yéen taxaw temb daal ba fekk la fa amuñu benn pessimisme ci Sénégal Sénégal dina jubi parce que yàlla li ñu may réew boo xam ni ci li ko yàlla may ci dex yàlla may ko géej ak yi nekk ci suuf yi nekk ci garab gi mais réew mi ndóol war fa am bon Sénégal bi am nañ ci yaakaar te duñu tiit mu ñu rek te nañ taxaw tem mouvement taxaw tem di mouvement boo xam ne bii ñi ngi yeesalaat seenu taxawaay ci réew mi donte sax metti woon na lool bi ñu noppee ci élection 2012 bi ñu doon tànn njiitu réew ak li amoon seen diggante ak conseil constitutionnel professeur Bouba Diop jëwriñ ji nekk ci bopp taxaw tem dellu soit ci ana moo tax ñu taamu ngaay mexee te ngaay itam lieu d'histoire la xam nga ñun on est des panafricanistes xam naa ko wax xale yi de parce que ñi ngaay ku caayee ngaay bu ñëwee ñun parce que Afrique fii dëkk bi li muy wax man suma ay maamaati maamaat xam nañu place bi ñu ne toog gouverneur ba nekk yëngatu woon Bafoulamé donc fii bu ñu fi ñëwee itam dañ ko choisir pour que africain Sénégal yeewu ni itam nañ ah attention Sénégal la nekk waaye il man Babacar Sow doon ca jokk ak yéen pour Sud FM. Sud FM. fi wéy di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu fukki simili ak benn tegoo. ci juróom-ñeenti waxtu ñu àddu ci li nga xamante ne moom la ñu daal di doxal lëpp lu jëm ci wàllu code bu électricité bu yees a tax na syndicat unique démocratique liggéeykat yu yëngu ci wàllu énergie di Sudeten ñoom nag ñoo ngi ko ñaawlu di métti itam doxalin wi nga xamante ne def nañ ko ci wàllu code googe te boolewul ña nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu euh, Euh, électricité bu ñu sukkandikoo ci kile di Alxasan ba nekk secrétaire général ba jàpp na nag lépp lu jëm ci wàllub énergie dafa doon la nga xamante ne Sénégal gépp ci bokk yem te dañ ko war a waxtaane ba tax rek mu daal di sàkku ci liggéeykat yi ñu fabbu ngir rek daal di takkoow taxawu xeex xeex boobe ndaxte nag lu coowal euh, akile bi fii la leen fekk te pënd be wuréegul ñu daal di ci bëgg tegub leneen niki tey jii la ñu daal conseil euh, syndical national moom Alxasan Ba ñu teewlu ko ci micro Denisia Samb. tey lu jiitu mooy tey Senelec tey dafa toll lenn lu ñu bett ñu koy naqarlu bu baax a baax mooy tey lu ñu gis mooy le 26 mai 2021 si conseil des ministres dañuy valider mooy projet sur code. sur l' électricité code boobu day lenn mooy yëpp luy waxati lu dem ci électricité code boobu moo koy sayt mu doon lenn lu am importance lu mel noonu nan la état bi mën a def lu mel noonu bañ si boole acteur yu nekk ci énergie loolu ñun mënuñu toog di ko seetaat lu mu war dinañ ko def parce que tey dañuy gis énergie bi dafa nekk énergie sénégalais yëpp moom nit nag lu ñu bokk si bëgg si mais dañ koy defar laaj na ñu boole ñëpp ñu waxtaane ko ci ko waxtaanee ku nekk wax loo si bëgg loo si nam ñoom nag yàlla ñoom la def ñooy autorité yi ñu tenir compte nit yi seen réserve ak seen xalaat suñ ko defee loolu ñu door ko yóbbu assemblée nationale suñ ko voté après su boobaa président mën na ñëw jël promulguer la mais lu nangu mooy def ko noonu si biir bureau rek ñëw yóbbu assemblée nationale mu am vote mécanique ñu ne léegi voté nañu code sur le lu mu leen jaral defuñu ko ñu dañuy lancer appel jàmm la ñu bëgg dañu leen di ñaan ñu wootee ñu tasee nu mu gën a gaawee ñu waxtaan si anam yëpp si code sur l'électricité bu ñu nee rek ñun Sénélec même consommateur sénégalais yi tamit bokk nañ si ñoom it day si am seen kàddu suñ toogee ñu waxtaan suy waxtaanee yëpp luñ fa tënk ñu nu ñu jébbal ko commission boobu su ko validé mu yóbbul ko assemblée nationale su ko voté ñëpp xam ne a ah lii de leer na. tamit am na leen exemple mooy déggoon yëpp temps bi doon ne contrat buy doon wax sur ay kii pétrole bu fi génnee. président dafa mujjee woon dem sax fexe publier waat pour que sénégalais mën a gëm affaire leer na tey dañ toll fenn yëpp lu ñuy def dafa war a leer gestion ak transparence ñu àddu ci coowal ndengaleer pënd ba wurigul te te wuri tax na itam askan wa fa yeewo jàpp ne nag yoon dafa war a def liggéeyam bokk na ci leneen lu ñuy mettitlu patt pataaral wala boog tekk tekkaaral gi nga xamante ne kilifa yi ñoo ko daal di def ci fànn boobu boobule te nag seen bébét mooy bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñu fas yéene jàppal tànk kile di Babacar Ngom wante nag loole nee na duñ ko nangu te duñ ko nangu ëllëg ba tax rek ñoo ngi wéy di laaj seen ñaari téeméer ak ñaar fukk juróomi hectare ya nga xamante ne béykat yi fi mu ne ni amut fenn fu ñu béy nag te fi mu ne ni nawet gi daal dina door ñu teew lu kenn fa ñoom di góor gi Abdoulaye Dione ñu gën koo xam ci gal góor ci micro Moustapha Sall mais nag lii ñii lu ñu def su fekkee leen gaawul leen ñëw kon dara du ko jar ndax kon du ma leen mën a ate te faw ñu dal ci ñooñu te lii kenn dafa loolu Babacar lii dañ ko waaj waaj bu ñor xom ñu def ko yëguñu ci dara ñu def ko gaa ñooñu ñii nekk caajaay te njaaraw sax la ñuy jekke mun jàlleen caajaay mu jég jaay-jaay mun jàlleen mbuur am ko mu jantal bi nag kooku sax kees la mujj a fajoo dégg nga ñun ci suñu bopp itam ñu fas jom ma ne kilifay dëkk bi maa jékki genn cinq mille teg ñuy teg ñuy teg ñuy teg ñuy teg ñuy teg du teg lu ko mën ko cent mille francs bariwul ñu yóbbu ko cee bari ko ku nekk kees ñu jóg foofu dëkk bi kees bu nekk indi cinquante mille muy fanweeri junni ñu defaat ko foofu renk rek parce que ñun dem ba ñun di ñu fa jan gànnuñu te moom suuf yee tax mu def loolu. eh ñun nag ñu xaara xaar xaar xaar xaar xaar ba gis nga ñu arrêté ñu te Babacar su béyul fukki at it wàññi ko dara dara ko wañu daa am lépp. mënoon na xëy tey di ma ne par ba mënoon na xëy tey bés bu nekk muy may par cinq mille bu jant bi sax te nun ay fukki dem sax yor ñu ko. muy xëccoog ñun suuf si ruqub suuf si dong loolu waroon na ko weesu mais nag li ma cay doy rek mooy. kenn ma président bi nag lépp mooma ndax lu moo waral mooma su demoon tey tey tey tey ne dem leen ci tool su bañ a dem ci tool yi. Macky Sall dama ko campagnal ba tas te yaakaar naa kilo ripaas jëri lu ma ko sama fas daw naa ci ba tas jël naa oto bi am fay di ko campagnal ba jaw ba tas te doon magum jëm ngir diggante tukulóor ak séeréer mais nag nañu delloo ñu toof seesi yàlla tax nañu delloo suñu toof seesi yàlla tax nañu bàyyi suñu suuf yi ñu liggéey suñu suuf yi Babacar Ngom war ñu ko gannal suñu askan bii askan bi yëpp askan bu toll nii benn nit jàllal ko mu ñu di la torxal nañu torxal yàllaa xam mais nag nun dey sis nañu su fekkoon taw ba démb sa tooloon xëpp ñu dem ci tool yi luñ jël fekk luñ luñ am jël waaw taw taw bi daa su tawee ñu dem ci suñu tool yi sis nañu nag yàlla rek kay buur jox li suñu tool yi te yàlla tax diggante tukulóor ak séeréer sonn nañ nag artu moo gën ñu àtte xeex noone la ko daal di xamle di góor gi Abdoulaye jon moo nekk kilifa. ca yu nekk foofee ca diwaanu Ndengeleer di wéy di laaj seen suuf kile di Babacar Ngom ak nguurub Sénégal ginnaaw taw yi bu mu doore nawet bi foofee nag ca wala dex mi nga xamante ne lu toll ci fukki dëkk ak juróom-benn yu commune bu Ndiaffate la daal di boole pont boobee nag moom moo daal di màbb daanu tax na rek euh, fi mu ne nii lépp lu jëm ci seen wàllu tool yi ak it yoon ya amatul fenn fu ñu mun a jaar ndaxte nag foofee moo kon seen jaarukaay collectif bi jëg ngir rek daal di aar lépp lu jëm ci wàllu wàllup intérêt wala dex ñoo ngi sàkku ñu daal defaraat seen wàllup pont boobee nu mu gën a ak yoon ya nga xamante ne foofee la ñuy jaar jéggi ngi rek daal di mën a egg ci seen tool yi niki tey ji la ñu janoog way taskatu xibaar yi Moustapha Mbodj moo yor seen kaddu ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. yoon bi mu ngi nettundu wala dex wala dex bokk ci commune Ndiaffate te madame Aïssatou Ndiaye nekk suñu maire. yoon bi ñu ngi ko defar 2014 euh, juróom-ñaar at juróom-ñetti at lañ ko defar dañ ko defaree wax dëgg yàlla moom woon ko ne ko bi yàqu na chaque jour mu ngi débrouiller di dem di indi ay partenaire ci mois de mai bi la fi ànd ak waa AGETIP ñëw dép Kër Waly Ndiaye ba xool yoon bi xayma li ko war a defar mais comme AGEROUTE projet état bi yàkkamti yàgg na sonn fii ci déplacement bu demee ba nawet bi war a bu ñu bëggee xaar loolu dina yéex ci la madame ni muy dégloo population bi comprendre leen ci la gaawaat encore ut beneen partenaire bu tudd FERA signé contrat yi ba war a démarrer ñu toog ba semaine bi passé pont bi dagg pont bi daggee dëgg yàlla mu doon aussi lu doy waar xam ne budget bañ prévoir woon du ko mënati ndax dañ prévoir woon réflexion waat yoon bi diggante bi nag comme il faut ñu tabaxaat ay pont feeraa ñëwaat fi defaat beneen budgétisation bu dem ba presque cinquante neuf millions soixante millions pour euh, demaat signaat yeneen contrat yoo xam ne moom mooy defar yoon bi donc ñu ciy gërëm bu baax moom mënu ko defar parce que xëjul si budget liggéeyu état la malheureusement ne yàqu dañuy dévier des fois comme pont dafa dagg mais avant muy dagg wax yàlla dañ doon loolu moo tax nag bi ñu ko waxee loolu ñu woon ko nekk nag yi nga xam ne ñooy horaire yi di ñëw fii di dévier di jaar yi euh, bu nawet bi ñëwee dina gën a ci la vraiment gën a farluwaat moom itam wax dëgg yàlla mu koy wax dañuy masawu population bi parce que aménagé nañ ko ba ba ba bagage ñëw na ñu àddu ci wàllu pour ndox ginnaaw bi nga xamante ne nag commune bu ndànk seen euh, seen ñaareelu adjoint moom moo fa daal di yëkki ay kàddu ngir rek daal di gindi askano ci jafe-jafe yi nga xamante ne daal dinañ ko fa nemmeeku ci lu jëm ci wàllu pour séddale pour ndox mi maam góor seen mi nga xamante ne nag euh, dëkk dëkkaan ñu fa daal di nekk ak yu dëkk yu mag ya ñoom nag dañ leen daal di raccordé ci réseau hydraulique bi moom nag jàpp na ne lu jëm ci wàllu pour forage bu Mbappé fi mu ne nii daal dina jeex wante nag doxalinu directeur bu AM di Sayer Diop moom moo nekkul la nga xamante ne moom mooy lu jaadu ba tax rek ñu daal di ko ñaawlu maam Ngor seen ñu teewlu ko ci jokkoom ak aadama Ndiaye. avant 2014 bi ñu nekkee communauté rurale dañoo bénéficié benn programme ci ASER permettre loon nañu ñu électrifier plus de cinquante cinq pour cent ci suñuy dëkk dëkk yi ñu dese woon mooy dëkk yi nga xam moo nekk ci wàllu bët gànnaaru commune bi nga xam ne dafa xaw a sori mairie bi amul doole yi mën fa yóbbu courant ndax étude bi fu mu jëlee ren rek monsieur le maire bi mu ko évaluer juróom fukki million ak juróom la ñu ne ko nan bàyyi xool yan pexe la def yàlla bi directeur am benn programme boo xam ne ak banque mondiale ñoo ko financé dëkk yooyu yëpp mooy tey Daaru Xaddim Tamaaka Mbab ak Tubambe bi mu Mbab bi tax ñoom ñuy wax Mbab bi ñuy defar liste bi dañ ko omettre mais Mbab mun a ñàkk bokk ci programme bi ndax Mbab moom mooy village centre bi fa la forage bi ne te forage fu ñu raccordé ko ci réseau courant bi ak case de santé maire bi ci pexey maire moom jàppoon na ne bu problème bi mënut a lijjantiku ndax ba Mbab bokk ci dina jël ci xaalisu maire bi defar Mbab ba mu am courant mais yàlla defal nañu sutura ba loolu foog na ne. lijjanti ko doo fekk problème bu am ban lijjanti ko ba mu fare boo ba nga xam ne ay commencé ko rek moo ci des ngay ñëw di wax avant 2014 élection yu mujj yu fekk nañu am accès universel à l'eau potable ñaar fukki village ak juróom yi ñu am ak amoon yépp amoon na ndox lépp fukki dëkk yoo xam ne bokkuñ ci commune dànq seen ko ñoo leen alimenté woon en eau potable ku yooyu wax dañoo mar gasal nañ leen forage forage boo xam ne tey château d'eau ba pare na forage ba bënn na raccordé ko ci réseau ba fa ne rek moo ci def te ñi koy def ña nga fa actuellement di ko liggéey dëkk yooyu tey forage ba nekk avant ñu fay bënn forage ba commune bi dëkk bu ci nekk yu bon na fa ndox robinet nga fa di xelli te loolu lépp maire bee ko def Sayer Diop moom a gën a métti ci wax ji ndax moom président la fi nekkal doon directeur général su ay nit nëbbutoo nekk njaareem di liggéeyloon askan wa jël ko ak i oto dem di wër di ko wax loo xam ne ni amul te mën na jël téléphone woo meer laaj ko wala mu jaar kër meer laaj ko te defu ko lu dul di ànd ak ñoom di wax damay jàpp ne moom day xeex état. kàddu yooyu la ki ñu toftal ci jaraafu dëkk bu euh, fi nga xamante ne moo nekk ca ndànk seen daal di yëkk ginnaaw bi nga xamante ne nag askan wa fa ak ñenn ci kilifay politique dal di nañ fa yëkk ci jafe-jafe ndox bi fa daal di euh, nekk. kilifa yu ñoom itam nekk ci selsu authentique fi mu ne nii ñoom itam kàddu yu ñu daal di yëkki bokk na ci ñu daal di fexe dakkal nu mu gën a gaawee cong ga nga xamante ne ñoo ngi ko def yenn jàngalekat yi rawatina ci bu jàngalekaay yi daal di am ndaje bu yaa foofee nag ca kaw Kaolack ngir rek daal di xool ana nees ñu def ba daal di fexe loole dootut am wala ba kilifa yi gën cee mën a taxaw du Fatim moo nekk secrétaire général bu sol sa Sels Authentique ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. Sels Authentique 45 département yëpp soo ko jëlee Matam boo capp Sénégal usuy dañu fii Kaolack pour rek suñu expérience yi ñu développé ba mbas mi ñëwee yan pexe la jàngal xale partagé expérience yooyu ñu wut nag ay kilifa yoo xam ne dañ si gën a yokk si forum bi mu Mamadou Diouf di Cheikh Mbow pour muy jàngalekat yu jeune jàngalekat yi su dara xewetee muy mbas ñu xool ñun a arrêté parce que am nañ si expérience kontaan également suñu camarade yi nga xam ne ak autorité Kaolack yi nga xam ne ñoo ñu permettre tey ñu daje fii Kaolack Kaolack sel si authentique fii la juddoo parce que ba mbas mi ñëwee ñun jàngalekat yi dañu génnee suñu poste 18 millions xale yi ñun ñëpp ñu xar suñu tànk tubéy ñëw si école yi encadré am ay résultats organiser xool mooy li amul daaw ñu amaat même résultat yi constaté nañu fan yi jàngalekat yu bari ñu ngi leen di indil problème métti am na lu am Caaroy euh, ak euh, Kébémer ak Gànjaay waaw muy lu métti nag jàngalekat yi mais ñëpp xam ne loolu mënatul compte mënuñu tuuti payoor ñu ñuy ñàkkal fayda si réew mi suñu kayit yi am problème ba pare ñu ñuy attaqué mais métti tal mooy lan métti tal jàpp enseignant yi xoj comme enseignant bu jigéen bi jàpp xoj agression métti tal mooy jël puso teg ko si euh, bi di xaar mu toog fekk saalu prof jëlal leen ay kaba donc nag ñu ngi attirer attention communauté parce que c'est l'école de la communauté suñuy doom la waaw ni si ñëpp góorgóorlu si yàgg balaa ñu ñëw école wante ñun également li mënutul continuer waaw ñu ngi wax gouvernement bi tamit jël si ay mesures waaw suñ si jëlul ay mesures nag vraiment dañuy jël suñu responsabilité ndax xale yi nag élèves yi xam nga moom léegi moom euh, Sénégal c'est un pays qui marche par la tête waaw ñu bari courage digital bi moom ñu ngi koy jéem a transformer en courage si sur le terrain moo tax yëf yi compliqué wante nag ñun ñëpp xam ne ñun jàng la yóbbu si école yi euh, li su continuer moom dinañ jël suñu responsabilité te ñun ni ñuy jëlee suñu responsabilité xam ngeen ko dañuy xëy peut takk ay brassard noir wala xëy balaa année bi sax ñu tëj école yi ñaari fan pour ñëpp xam ni lii moom duñ ko nangu. ñu àddu ci édition gàmmu 2021 bu tarixa kontiyu Njaasaan bu nekk ca Casamance ak bu Guinée Bissau daal nañ ko amal foofee ca Sédhiou ci teewaayu xalifu Cheikh Mouhamad baabu mi nga xamante ne nag dellu siwaat na bu baax a baax solo su ndaje boobee euh, teew na itam euh, ca dellu siwaat na itam ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu seen mbëbët bokk na ci ñu daal di yeggali euh, liggéey ya nga xamante ne moo taxaw ci lu jëm ci seen wàllu grande mosquée bu nekk foofee ca Sédhiou jëwriñ gi ñu lépp lu jëm ci wàllu caada ak communication nekk itam maire bu Sédhiou daal na dalal seen xel jàpp ne nag nguurub Sénégal dina def kem kàttanam ngi rek daal di fexe loole mën a am Moussa Dramé gàmmu tarixa kuntiw bu njaasaan atum fii ci diwaanu Sédhiou amal nañ ko ci jàmm ak it ponk boo xam ne moom lañ ci doon waxtaane aju ci wàllu responsabilité maanaam sas boo xam ne kenn ku nekk ab la ci moom ci fànn ba muy yëngu dañ ci teewlu leeral kii di Cheikh Mohamed Babou nekk xalif tarixa kuntiw ci Casamance ci Guinée Bissau kenn ku nekk ak sa responsabilité ni mu toll ak mu toll loolu yonent bi saas mu ngi koy détaillé naan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nekk sàmm nga te kenn ku nekk la ngay sàmm suñu borom dina la ko laaj ëllëg nan nga ko sàmme woon ne imaam bi sàmm la ci jàkka ja borom kër bi sàmm la ci biir kër gi borom dëkk bi sàmm la ci dëkk bi borom réew mi sàmm la ci réewam kon responsable dafa des. jiitu réew mi Macky Sall ki ko fi teewal di ministre de la culture de la communication di Abdoulaye Diop nekk jaraafu commune Sédhiou ne ne dégg na lool ci ñaan yoo xam ne jot nañ ki yëkkati ci jotaay ji. si digal sëriñ bi tam président de la république xam nañu ne suñu topp fi ah, yéen mu am si équité territoriale si sëñ loolu lu jar la. Alif Kounti bu Ndiassane toogee fii ci Casamance ak ci Guinée Bissau di Cheikh Mohamed Babou sopp na lool tamit ñi daal di àggal liggéey boo xam ne moo di jumaa ju mag fii ci diwaanu Sédhiou ci loolee it jëwriñ bu ndëkk wàllu ci aada ak it wàllu jokkalante di Abdoulaye Diop maire Sédhiou fëddaliwaat na taxawaay njiitu réew mi Macky Sall fas yéene gën a soqali diwaanu Sédhiou. achèvement mosquée bi boo xam ne commencé nañu grâce à la volonté rafet bu mu def fii mais nee na ma tam suñu yokkee mu jël. ci guddi gi yëpp am na it ay xasaayid ak it waxtaan di conférence boo xam ne amal nañ ko ak it ay tabala boo xam ne doon nañ ko ci tëgg bu baax ci ñetti waxtu ci guddi ci la nag daal di am taw bu bare boo xam ne wàcc na fii ci diwaanu Sédhiou yi xool yi tooy lool lu jëm ci wàllu waxtaan yu ñu ci doon yëkkati ñu rafetlu ko lool gis nañ ko ak yéen Sédhiou Moussa Dramé Sud tàggat yaram ñu dooree ko Dakar Sacré Cœur mi nga xamante ne nag dafa nërmeelu ci kanamu Casa Sport juróomi bal ci dara lañ ko daal di dugal loolee nag doon na la nga xamante ne mënuñ ko dëkku ba tax rek fi mu nii. Euh, kii lee di David Liberty nga xamante ne moom moo nekk seen euh, entraîneur ñu loolu at ah, ci français waaw dinañ ci dellusiwaat ci suñu xibaaru français yi euh, buñ ca noppee itam Casa Sport mi nga xamante ne moom moo jëf loole daal dina ko rafet lu baax a baax ba jàpp ne nag fi mu ne nii moo ngi defaraat jaajëm bu baax a baax dañuy teewlu kii lee di Ansu Jaaju moo nekk seen entraîneur ci jokkoom ak benn Michel Kanfoudi. di te leen leen wax ni liggéey bi encore des na dañu war a continuer liggéey bi gën ci liggéey encore gën ci sànni euh, maintenant ci match bi euh, li ma jot jàngat mooy gis nañ ni xale yi li ñu doon wax ci envie bi ci bëgg-bëgg bi bi ci joxe seen bopp outil euh, bi def nañ ko mais am na lu des parce que match bi ni ñu ko démarré baaxul parce que bëgg nañ boo nekkee à domicile bi nga démarré ko am bu te tey ci cinq minutes yi bu Dakar Sacré-Cœur duggoon duñ am lu ñuy wax te match bi dina doon mel ne tax na nañ gën a accentuer liggéey bi ci lu ñuy duggee ci match bi pour ñu teel ci dugg nga xam ne adversaire bi ñu ko may confiance donc loolu noonu moo des te dinañ ci liggéey bu baax ñoom pour gën ci nekk nga xam ne duñ am problème ci démarrage match. Euh, ci match yu mujj def nañ ay match yu baax ba ñëpp kontaan mais gagné wu donc tey li ñu war a def mooy def tout pour gagner parce que loolu mooy loolu mooy marqué. Euh, match bu baax bi parce que boo defee match bu baax te gagné ko bind fenn te du du affiché wu donc fu muy affiché rek il faut nga ah, ci beneen euh, mbir bokk na ci beneen jongante bu amoon foofe euh, nga xamante ne moo nekk diggante MPC di mbir Petite Côte ak Stade de Mbour ca mujjanteel ga sax dañoo mujj day sàndante ay mbuusu ndox ak ay jokkalante ay kàddu yu ñagas foofee ca stade Lamine bu nekk ca Kaolack Mamadou Camara Mamadou Camara ñu dellu ci jongante bi dox diggante Mbour Petite Côte ak stade mbuur ca stade Lamine bu nekk ca Kaolack jàppante yu tar moo dox diggante supporters yi ba tax sax fi mu ne nii ay saagante ak ay sànnante mbuusu ndox ak itam ñu nakasu demewut noone la ñu daal di nemmeeku niki tey jii ci ngoon foofee ca Kaolack Mamadou kamara dimanche bi tàngoon na lool ci stade Lamine Gueye bu Kaolack nga xam ne Mbour Petite Côte moo doon dajeek stade de Mbour stade bi feesoon dell ñaari équipe yëpp indi ay caravane ambiance bi bariwoon lool ay mbuusu ndox yu ñu doon sànni ci biir terrain bi di ko sànni arbitre bi ak tamit ay kàddu yu ñaaw yu ñu doon yëkkati diggante ay supporters ay mbéjante sax diggante ay joueurs bi match bi jeexee ak xuloo bu métti amoon na fa waaye bi ñu ñëwee ci cappaandaw be nag Mbour Petite Côte moom moo daan stade de Mbour ci benn bal ci dara bitu Mbour Petite Côte bi ki ko dugal mooy Mansour Samb bi ñu footballé fukki simile ak juróom-ñaar Abdoulaye Diakhaté bokk ci ñi indi Mbour Petite Côte lii la ci wax. boo waxee derby rek xam nga ne match bu dul yomb la quoi dañ ko mos a gëm quoi xam ne ñoom ñoo ñu door aller retour bi il faut ñu liggéey ñëw taxaw taxawaay bi jekk liggéey ko semaine bi yëpp ba ñëwee booy tamit appliqué nañu franchement li nga wax yëpp def

ci biir match bi Saraba di góolu Mbour Petite Côte ak Abdou Mbodj di jooru Stade de Mbour ñoom ñëpp arbitre bi def leen dàq ci poma ndax nag ku ci nekk jël nga carton rouge Kaolack Mamadou Camara Sud FM noonu la ñuy egsi ci lu gënoon fës ci ay xibaar ñu ànd ceeg Josette yi Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Décès de ce mercredi dans les locaux du commissariat central de Dakar. dal leen jàmm ci jotaay biy fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM ci talaata gi kii di Abdou Faye génn na àdduna ci locaux yu commissariat central bu Ndakaaru autopsie bi ñëw dëggal ni moom mi ñu njort ni complice la ci Baye Modou Fall alias Boy Guinée dafa xaru boobee conclusion famiyom ak yenn ci ay activiste ànduñu ci Babacar Samb ndax moom ne di Abdou Faye dafa daal di xaru njabootam di dàq li di mel Pape Ali Faye moo di waajuram bu góor tuumaal naan dafa xaw ñun loolu mu wax dëgg yàlla doyul coordonnateur bu FAP Guy Marius Sagna di xam le itam ni xel mënul nangu li ni mel donc ça veut dire que heure bi nga xam ne Fallou Faye indi na ndekki bi mbir bi amoon na ba pare parce que nag bu fekkee après la am ça veut dire que bii ko ñu tas police sénégalaise jël a tabaxaat beneen police parce que ce serait extrêmement grave turandoo Abdou Faye leen xool na corps bi liñ ci ràññee woon mooy am na ay góor ci bopp bi moom di activiste bi teg ci di ñaawlu violence yi nga xamante ni takk der yi ñu koy daal di faral di teg ci askan wi di dànkaafu nguurub Sénégal Abdou Faye soog am jafe-jafe ak yoon dem ba daal di si ñàkk bakkanam njabootam di si sàkku li dul leeraange. bëgg a jël mbir yëpp jébbal ko yoon mu def ci ay déclaration. Abdou Faye moomee ñu ko tegoon loxo ak Boy Djiné ak yeneen ci ay nit ca Missira ca région bu Tambacounda ci jamono ji Boy Djiné ñaar ci ay nit yu ñu njoxte ni ay complice am lañu ak ñetti garde pénitentiaire ñoom def nañ leen sous mandat de dépôt waaye kii di Abdou Faye jébbal nañ ko boromam ajjuma gi ci Diourbel làkk gi amoon ca unité néonatale bu hôpital Magatte Lô bu Linguère docteur Abdou Sarr nekkoon fa directeur Khady Seck nekkoon fa aide soignante ak kii woon ki yore service pédiatrie ñoom inculpé nañ leen ci talaata gi ba pare placé leen su contrôle judiciaire ki ko def nag moo di juge bu deuxième cabinet bu Louga sàkku woon nañu ubbi ci ab information judiciaire ginnaaw l'enquête bu gendarmerie bu Linguère defoon te moo yëkkati ni sàgganteef gu bëri lañ ci nemmeeku. parti démocratique sénégalais ñu ngi si tiis kii di Abdoulaye Faye moo génn àdduna moom mi nekkoon président bu conseil régional bu Dakar nekkoon fi it administrateur bu parti démocratique sénégalais ci gaaw gi la faatu Abdoulaye Faye nekkoon na njiitum commission discipline bu parti libéral googee ci àllarba gi la ñu tegoon loxo kilifa bu yanamar activiste bi nag ñu ngi ko jàppee ca kaw Kaolack ginnaaw ab manifester goo xamante ni dañ ko tere boole ci muy xoqatal xamante ni ko ca garde na liberté provisoire waaye ci àllarba gi di ñëw la a janoo ak juge bi ngir àtteem Mamadou Camara. kilifa bu yanamar bàyyi nañ ko bàyyi nëgëndiku ginnaaw ba nga xamee ne janoo woon nag premier substitut procureur bi nekk ci tribunal bu grande instance bu Kaolack biñ ko bàyyee nag kii di avocat am di maître El Hadji Malick Diouf kàddu yi la yëkkati. biñ ko defaree koy toppee benn bi nee nañu dafa def outrage à agent bu waxee. noo xam ne ci commissaire bi wax ja teggi newul ñaareel ba ñu ne dafa fippu bu ñu ko jàppee pour yóbbu ko àllarba moom dafa war a dellu si parce que procureur defu ko mandat de dépôt may na ko liberté provisoire. àllarba fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin bii ñëw la kilifa bu yanamaar war a taxaw ci baar bi janoog àttekat yi su ko defee mu xam dëgg-dëgg fan la féete. mouvement pour la défense de la démocratie ñoom ñoo nekkoon ci ajuma gi ca place de la nation MDD di sàkku ñu bàyyi ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàppoon ginnaaw manifester yi amoon te coowal Ousmane Sonko Adji Sarr waraloon ko ñu jàpp ne ñooñee ay détenus politique lañu fu mu ne nii juróom benn si ñoom ñoo fa des ndax ñaar ci ñoom bi manifestation bi di am lañ leen bàyyi Amadou Moustapha Dieng. mbooloo mu takku teewoon te place de la nation ngir amal toogaanu ñaxtu di laaj ñu bàyyi juróom-ñetti xale yi nga xam ne ñoom téye boobu ba léegi diir bi ñu amal manifestation bi sax ay xibaat jib ne ñaar ci ñoom. di Moussa Gueye ak Fallou Galas Gueye ñoom it bàyyi nañ leen. ñeneen ñaar ñi bàyyi nañ leen. dañ leen nag ñu ngi leen di jox ultimatum. leader politique yi di xam ne ne teel a wàll gën aay dañoo bëgg ñu bàyyi ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ leen ci wàllum moom Guy Marius Sagna di xam ne ne dañuy bañ li dal Abdou fay ci kaso bi ba mu ñàkk bakkanam daal di dal ñu nga xam ne ñoom ñoo leen teg loxo. bu ñu nangu mu bàyyi leen jot ci kaso bi tubaab am na yeneen ñeent yu fa nekk. Barthélémy ay kàddu gi waaye di waxaale. à partir d'aujourd'hui il y a une très forte attaque dans ce pays c'est ça Macky Sall parce que Macky Sall a décidé de prendre en otage la démocratie sénégalaise. Ousmane Sonko moom it di dóor ay xeer président Macky Sall dem ci wàllu tournée politique am bile. tournée politique mu naan tournée économique benn Sénégal rek laa xam ne fay ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te Sénégal yi dafa am tur am sant mooy kan Macky Sall. xeex bi nag dafay wéy am na ay kàddu yu bëri yu jib jëm ci wàllu élection locale yi di ñëw. ngir xeex accident de la circulation yi ci lu yàggul dara ab projet de loi ci lu ñeel code de la route dinañ ko yóbbu ca pencum ndaw réew ma lu bëre ci ay mesures moo nar a gunge boobee projet ngir xeex nag accident ñi nga xamante ni njort nañ ni téeméer goo jël juróom-ñaar fukk yi doxalinu nit moo koy waral Mansour Faye jëwriñ ci ñu dénk wàllum infrastructure transport terrestre ak désenclavement. am na projet de loi boo xam ni fi projet de loi boobu dafay defaraat le code de la route euh, jugee ci ay jumtuwaay bëri jugee ci ci wàllum par exemple am permis wala pédagogie maanaam pour affaire auto mais aussi ak permis à point voilà jugee ci ay jumtuwaay bëri yoo xam ni maanaam danañ mën a permettre ñu jël ay décision à travers ay décret pour gën a respect code de la parce que gis nañ gis nañ accident lu ci bëri boo ci jëlee téeméer juróom maanaam xëy na ci dawal bi la wala ci chauffeur bi la mais yëpp daanaka lu wax facteur humain moom mooy indi accident donc bu ñu facteur humain nag fekk ñu mën a sanction yi mën a approprié te loolu de la route dañ mën en application yu bëri surtout les permis à point pour que maanaam euh, wàññi wala mbalu accident yooyu ca Mali Assimi Koïta waat na ci ndoxteelu benn ci ayu bés bi nekk na nag fi mu ne ni njiitum réew bu transition bi mbébétam moo di wëyal lépp loo xamante ni ay accord la jëm ci jàmm gi waaye it wàccuwoo ak engagement internationaux yi ginnaaw investiture am googee ki di Cokel Kokala moom tabb nañ ko mu nekk njiitum jëwriñ yi moom mi di Cokel Kokala moo di président bu comité stratégique bu m RFP fii la ñuy ndax képp jotaayu xibaar yi gënoon am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. sant leen gërëm leen ci teelu bi ngeen doon teelu seen rajo Sud FM ngir taataan fi xibaar yi yooyu xibaar foofee lañ ko daal di yëkkati ci lu gënoon a fës ci ayu xibaar àndi ceeg Josette Kali bokk na ci mi daal na ko yëkki foofee ca Njum lu toll ci benn milliard lu toftal juróom-ñeenti téeméer million ngir rek daal jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi fa daal di am ab xëy wala boog ñu fas yéene am ab xëy ci loole daal dina génne itam lu toll ci koppar googee ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar jagleel tailleur yi fa daal di nekk ngir ñu daal di mën a ñaw lépp lu jëm ci wàllu tenue école yi fa daal di nekk ak yeneen programme rawatina bi nga xamante ne nag daal dina daloo ay hôpitaux ak itam yóbbu fa ay ambulance ak yeneen programme ngi rek daal di wéyal lu mu duppee tournée économique foofee ca bët gànnaaru réew mi loolee boole nañ ci yeneen ñaxtu ak itam dëkk yi nga xamante ne moo jëm ci diwaanu Kaolack foofee ca Ndiafat gis nañ ne itam pont bu wala def foofee dafa daal di daanu ba tax rek askan wa fa daal di ñu daal di leen ko defaral rawatina ci jamonoy nawet bi nga xamante ne dem ak dikk bi dafay daal di am ab jafe-jafe ci loole boole nañ ci itam lu jëm ci wàllu tàggat yaram 22h Aïssatou Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon gërëm bu baax Alassane Wade mi féetoon ci xarala gi ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.